asalaamualeykum wa rahmatullah messieurs les ministres Bakassi chers collègues chers collègues de la presse monsieur le ministre fi ñuy dooree rek mooy bu yu infrastructure ñu ne yokk nañ ko ba deux cent quatre vingt milliards VDN bu Géejawaay la mairie bind nañu bindaat bind bindaat bind bind bindaat wax nañu fu ne sécurité bu fa am ëpp na CRBC seeni camion daaneel neen pont yi nekkoon ci VDN 3 bi yëpp ay moor yu bëree bëree bëri moom moo fa am ñu des ci géejawaay ba léegi ni mu monsieur le ministre des finances de l'économie wàllum suuf si yow la fi ñu teg nag ay magistrats ay inspecteurs le commandement territorial population géejawaay bu dul yenn ci ay conseils municipaux li xew ci yenn gox yi moom la ñuy bañ mu xew foofu te imaam yi délégué yi bàjjenu gox yi sportif yi géejawaay waa lambda ñoo gën a mérité ñi Macky sàll di bindal ay décret di leen jox suñu suuf soosu wàllum immigration clandestine dama jàpp ne nguuru Sénégal gii complice la parce que mënuñu gëm benn yoon ay milliers et des milliers de jeunes di dem mu am benn légèreté boo xam ne moom moo ci am un million de départ égal un million d'électeurs ragal ngeen ni jeunes yooyu ñoo leen fii jëlee moo tax ngeen leen di bàyyi ñuy dem Macky Sall nag mi ngi nekk ci benn tournée lañ ko mën a jàppee il a promis à Kédougou deux cent milliards Kaffrine six cent milliards Kaolack mille milliards Fatick quatre cent quatre vingt trois milliards vous faites l'addition deux cent quatre vingt trois milliards ci quatre mu des dix fan ngeen koy jëlee loolu jar naa laaj tournée politique boo xam ni candidat am la àndal politique la mooy directeur de campagne kese candidat boo xam ni ñii bokk moom ci boppam sax ànduñoo ak moom. da ngeen di def yëfu naay sal nii rek yéen ñëpp dégguñu benn punkal boo xam ne moo ànd ak Amadou Ba loolu moo tax Macky Sall ci boppam sonn ci sonn bay bëgg a dee mais coow li coow li nag monsieur le ministre nee ngeen lu tolloog deux mille milliards deux mille douze fa la bi toll woon sept mille en deux mille vingt quatre est ce que budget la boo xam ni bu réaliste la ñu ñëw ba léegi ni la des ci Macky sal ak lu jëm ci wàllum yorin gi mille milliards la ñu waxoon fii ren les corps de contrôle de l' état ñoo ko wax. presse waxu ko opposant waxu ko dans le cadre du Covid ne dañ ko jël caxat caxatee ko mille milliards yooyu ba fii ñuy wax monsieur le ministre ginduñu ci Macky nag mooy de quatre vingt jours moo ko fi dese na organiser ay élections inclusives yéen nee ngeen yéen a mën yéen a ëpp doole mais bàyyi leen bokk man suma candidat Malick Gakou la et c'est moi qui suis son directeur de campagne te dama jàpp ne man maay gañ mais bàyyi leen Ousmane Sonko mu bokk si élection yi balaa ñoo añ mu tàggoo ak parce que Macky Sall candidat mënul dem deuxième tour nañ leen waxante loolu day dem doo leen sa bopp. merci